xale bu jigéen bi ñu tuumaal mbir mi. <laughs> waaw ñu ni mës na jël rakku xale bii ñu faat tàbbal ci foos. rakkam bu tuuti muy nàmp. bu ndaw tàbbal ci foos. Mhm. ba xale bi tuuti mu faatu urgence lañ ko yow ñu bàyyi ko noonu. dañoo nëpp nëppal. parce que jubóowul ak waa kër ga dafa am ñoom problème. et après. ñu nëpp nëppal alaaji. Ah, di ah, jaajëfal ah. Ndiaga Fall. di jaajëfal aussi Pape Abdou Cissé bi nga xam ne euh, monteur la fii. moom moo demoon ba kër mhm. maamu xale bi. jëlal ñu ko ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax njaga partagé ak man maa ngi koy jaajëfal bu baax uh-huh. dañuy ñëw ci libération ba pare laata ñuy dugg ci maam ji libération tey dafa xëy xamle ni uh-huh. xale bi dafa réer mardi vers 17 heures bi mu réeree benn borom kër bu doon defar këram moo fekk xale bi ñu tëral ko ci bâtiment bi uh-huh. xale bi nag ci ni police scientifique bi duggee waa gendarmerie ne dañoo gis ne ñaari paa ñoo taxaw maanaam xale bi ni mu tëddee dafa tëddee wet ñaari paa ñoo taxaw ñaari paawu tànk xaw ma nu ñu koy ci olof alaaj ay paa waaw mais ni paa yi taxawee par rapport ak kooru xale bi mhm. wane na ni xale bi ginnaaw la wan ki ko tër hmm? te ki ko tër dafa jël paaka rendi alaaji laa hawla wala quwwata loolu nag mooy sama problème bi suba bu dee moom la dëgg dëgg dëgg bu enquête bi révélé ni moom nit la ki ko tër loolu la def <laughs> ñaari paa yi wane na dafa tëral xale bi ci côté ba paré jël paaka wañ rendi paaka wañ en plus paaka wañ gis nañ ko ci suufu benn brique ñu teg ah xolol oh oh, xawat ndaw ndaw rey gu metti xalé bi feut feuti wul manam biñ ko duggal ci bâtiment ba yëngu wul oh, ce qui veut dire que kon xam na foofu yëpp wane na ni deful trace de xëccu wax yooyu amu fa xeexoo amu fa ko da ko xam maanaam am confiance ci ki la am confiance mo trace de lutte amu fa quoi trace de lutte amu fa la tax ñu jàpp tante ji mooy caméra de surveillance yi benn wane na ni. àndoon na xale bi xale bi topp ci ginnaawam. deuxième chose bi mooy ba mu ñëwee ci jour boobu yëre yi dafa gaawantu fóot ko. Hmm. yëre yi nag jël nañ ko teg nañ ci loxo jël nañ paaka bi xam nga nag yooyu yëpp day wane ay day wane si. Uh-huh. te yéen kaay mi nga xam ne ni fii ay heure donte moom mi ngi xam le ni faatul xale bi mbir yi moom dina leer. moom Hmm. enquête enquête bi moom mbir mi moom dina leer léegi léegi léegi léegi. Mbacké hmm. dafa fort de. Hmm? un crime n'est jamais parfait. jamais. jamais jamais. maamu xale bi nag wax naa ko Pa Abdou réalisateur ci kaw Pa Abdou monteur euh, moom moo ca ànd ak njaga dem jëlal ñu maamu xale bi. xam naa ni euh, boobaak léegi ñu ngi dégg sax ojo bi ci réseaux sociaux yi mais dañuy dem déglu leen déglu maam ji mu ñëwaat. ci li nga xam ni moom moo di faat gi ak naka lañ dëkkandoo kooku nga xam ne moo di présumé meurtrier bi présumé meurtrier ñu dem ñëwaat asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen balu àq leen baal àq xale bi démb démb ci bëccëg dama dem julli ji ba ñëw bi ma julli jee ba ñëw maa ak maamam la ñuy boole añ maamam añ ba pare ma jël añ bi dem toog fee di añ jàkkaarloog moom mu daw génn bi ma jàkkaarloog moom mu daw génn kër gi bi mu génnee kër gi rakk ji doon na ko topp mu daal di waññi rakk ji ndekete boobu ndaw si sëy ci kër gi jarbaatu paa bi ar euh, du jabaram moo ko woo moom mu jiitu ndaw si jiitu mm-hmm. xale bi daw mm-hmm. topp ci ginnaawam mm-hmm. benn dàll bi sax mi ngi ko sole ci buntu bitigu Pape Modou benn dàll bi sax foofu la ko sole yàkkamti daw daw caméra bi moo ko feeñal caméra surveillance bi ci bi ci moo ko feeñal mu jiitu léeg-léeg mu geestu ndaw si xale bi daw topp ci moom ba mu làqar bi déedéet jàppul ci loxoom xale bi da ko topp moom da ko woo moom moo ko woo xale bi topp ko dégg nga bi mu ko wooyee la ko xale bi topp muy dem bi muy dem mu ngi dem léeg-léeg mu geestu xale bi daw topp ci moom bi mu rombee biti ko ubbi siise ba ci beneen bopp koñ bi fi la jàdde bi mu jàddee it ndaw si dafa jàdd mu ngi bokk doomam ndaw si jàdd xale bi jàdd topp ko ba ci bopp koñ bi mu jàddee mooy yoonu coxo bi waaw ñu àndandoo dem ba ci fi ñuy jaayee caagri bi nee na xale bi jënd na fa caagri man nag mayuma ko xaalis yaay mayu ko xaalis mm. te boobu heure añ la mm. boobu xale bi dafa añ rek i génn kan ko ga nga ko doyewul caagri dara mu jàpp ci mu ànd ak xale bi jàpp ci loxoom mm. bi mu rombee neex soow bi mm-hmm. continué na dafa continué jaar jëm tàngoor ak xale bi am na ku ko gis mm-hmm. ki ko gis nag nee na moom bëggul a wax mm-hmm. dafa ragal a wax gis nag gis na ko mu jàpp ci loxo aada mbaay bokk doomam doomam bu jigéen topp ci ginnaawam nii la mbir mi demee dama toog fii rek dégg ay yuuxu bi ma déggee yuuxu yi nit ñi daw na ñëw fii fekk ma fi ma toog ñu may dëfal ñu ne du xale bi ñu ne am na ku dee waaye dalal du moom xale bi xale bu mag la ci la leen wax ne leen dembu batay ma ngi wër sama seut mhm. gisuma ko kon suma ma ray mhm. da fay jaadu mané mom la mhm. fofu rek la koy tek kon non la ko yalla dogale non la ko yalla dogale non la ko yalla bëggé sama seut la ma jur bayam gëm na yalla bayam ñu tuddu Aline Diop Aline Diop la tuddu soxnaam moom mu ngi fii nii. soxnaam waaw soxnaam Daba Diop la tudd mu ngi ci kër gi waaw. kii la am njëkk am ci doom wala. waaw mooy taawam mooy taawam. waaw 2017 la judd. Hmm. waaw. kii am na mooy taawam am na ñaari rak. xale bi nag. bu dundoon sax bu dundoon sax di ñu si ko ci kër gi sax ñeewante naa ko parce que xale bi bi muy dem dafa am ndoxum siti ay kawas sax la yóbbaale xale bi boobu ba tey ndoxum siti yaa ngi tey jii. Hmm. laa ko waroon a yóbbu kër sër tey laa jëloon décision yóbbu ko kërsër man nag nangu naa dogal yàlla gëm naa yàlla papa kii toog sama papa la jullit la yàlla moo ñu jox dañoo dénk heure bu soxlaa bakkan bi heure bu ko soxlaa ak fu ko soobee dina ko jël mm-hmm. waaw dinaa gëm yàlla mm-hmm. dinaa nangu dogalam sama aada xale bu ma bëgg xale bu ma nangoo jege démb ci suba bi mu toogee sama wet buy toogee sama wet tant que kolewul yaramam ci man rek du am jàmm dina dandu si ba ci man taf yaramam sama yaram musul nelaw te ci sama kanam la la la la lay nelawe ci sama kanam lay tëdd ba nelaw ma yëkkati ko yóbbu ko fi mu war a tëdd ma gëm yàlla ya, nag nangu dogalam mm-hmm. ba ma ko gisulee démb ba tey yi tamit lu ci yàlla namm rek la ci yàlla soob moom mi ñu ko joxoon mm-hmm. lu mu ci soob rek waaw jëlin bi moo ñaaw moo ñaaw moo metti ñëpp dinaa ko muñ dinaa ko muñ ndax xale bi mm-hmm. ndax xale bi def lii dëkk ci kër gi ma nekk ak moom ci kër gi jëkkëram ji sama jarbaatu jëkkër yaayam nekkoon sama yaayi xale bu góor bi nekkoon sama xarit xarit lool. ma sóor lu bari ci moom. mu def ma ay mitit mitit yu bari. ci biir kër gi sama sët. rakki kii la jëkk a tàbbal ci foos ba. barke Serigne Saliou. rakkam. rakki xale bii dee tey. moom la jëkk a tàbbal ci foos. ma teg ci sama tànk ma dem Cees ñëw ñu wax ma ko keroog kooku pédiatrie ba la fanaan la yendu ak papaam fekk maa ngi Cees ma ñibb si jogg ci sama tànk waxuma moom nu mu mujjee mujjee na ñu pompe ko génne ndox mi mu naanoon ndax ndoxu foos bi la sama weer wi Papa Diop indi bidon litre jox daba mu dem jëndi dawlin bidon litre mu xelli juróom benn litre yi dem jaayi ko coxo ki koy fay xale euh, doomu meer bi mu ko jaay ñëw di indi xaalis bi fekk ñëpp toog mu ne ko sama yaay nee na xaalisu dëwlin baa ngi nii ma teggi ma joggi ci sama tànk Papa ba tey waxuma ko ko te duma ko ko wax parce que sama jarbaatu jëkkër la te am naa lu bari lu may sóor te fii muñ naa fi lu dul lii yaa ngi dégg mu ëlbatikuwaat am na kuy jaay jën fii la ko fekk suba teel bu ma jullee ba fajar damay ubbi sama palanteer ma dégg ko muy coow jaaykatu jën bi ne ko yaa sàcc samay jën barki sëriñ Saaliw ma dugg sama néeg génne trois mille francs jox ko jaaykatu jën bi ne ko demal ñun ay jaboot lañu man jaboot la bëgguma dara lu ñaaw walla lu ñuy xoole nit suba jaar naa fii ak xale bi sëyam bu méttee bu jotee jëkkëram maay waaxu dugg néegam defar ko ba mu toogaat ak i njabootam barke yonent barke yonti yàlla Muhammad kooku jikkoom la jikko ju mu jikko am la jum fi indaale kon neexu la dindi neexu la jikko moom seen mbokk la wala déedéet du suñu mbok ki ko takk mi ngi ko takkee ba Ndar ndar xale bu jigéen bi waa ndar la fa la jóge ñëw fii rakku jëkkëram mhm. magu jëkkëram la jëkk a nekkal Thiès ñu jote ci la ñibbisee fii mhm. bi mu ñibbisee fii ñu jox ko fi néeg mu nekk fi daanaka loolu sax ci man la jóge doon na tëdd ci mat laa kese jëkkër ji teg mat laa balaa muy am doom ma ne ko Ablaay mu ne ah ma ne ko damaa bëggoon lépp lu may wax nag ak lu may def ci doomu aadama man Amy Ngom bu ma nit xam na ma yàlla xam lépp lu may def yàllaa tax ma di ko lu yàlla tuddoon la amay ah, juddub xale bii nangu naa dogal bi nangu naa ko bu baax baax aada sama xarit la aada ku ma bëgg la ku ma jege du ndékki te ndékkiwu ma fu may ndékkee day te palaatam day indi ndékkeem teg ko ci sama wet su toogee bu ñu distance bu mel nii sax bëggu ko sama digganteeg moom dina tafu ci man si sama lal lay nelawee chaque bis bu ne koy muñ nag yàlla muñ loo yàlla